gis gaa gars yi taxaw fële ñëw naan dañuy ñëw pour xeex ñoo ñoo ñoom ñoo nu gën a sonn parce que suñu ay mbokk lébu lañ buñ ñu boole. tey jii lébu yi bari ñu ngi biir prison te pourtant si seen alal lañ leen fekk nangu seen alal yóbbu leen prison tëj leen jaaykatu suufu lébu yi bari ñu ngi prison kon bu ñu seytaane boole ñun ñëpp ñoo bokk benn mbibit mbibit bi waaw li am mooy problème de fond bi posé bu ñun ñu ngi am problème ak waa impôt et domaine impôt et domaine tey jii dafa transformé wu en en agence immobilière trois quarts gars yi fi nekk yépp di tabax dañ leen a jaay te ñen ñu leen jaay waa impôt et domaine ñoo leen jaay waa impôt et domaine ñoo fekk ñoo fekk suufu lébu yi parce que fii yoof moo ko moom problème bi problème bi problème bi ay réglage bu ndaw la plus haute autorité de l'État muy le président Macky Sall ñun moom la pour interpeller. wa ay de ben ban problème la ak population ban problème la ak ñom pour que ñom ñun li ñu ci taxaw. li ñu wo bu ñu sax kayitu kër nga bañ espace public nga bañ école nga bañ centre de santé nga bañ ba di jaay suñu ay ñu nek suñu jox ay mais lan moy problème bi terrain bi depuis 14 ans. xoolal ñu ko fi daaneel keneen ñëw ñu daaneel fii kuñ ko attribué amoo kër fii espace vert la fii espace vert la moom nag bu sama rakk jooju day ñëw ba fii di gaare otoom di xool bu ko amee renseigné woon vrai du euh, du dugal loxoom fii su bëggee dimbalee nag freeram walla wala goroom am na lu mu ko may tey bu ko neexoon may ko villa bu àgg man man mii man man maa ko wax koo bëgg dimbale am na neneen noo koy dimbalee mais pas avec la fraude ak force am na li nga xam ne moom bu bu yëkkatee sax ñëpp yuux sax war naa teg ci suuf loolu moo yëfu jullit ñun nag du ñu xasee lii nag parenthèse la rek pour ma tontu kon li mu ñun ñun doxandéem la ñu. Adama fay mi ñuy wax ñun dañ ko invité mu ñëw fii ñu wax moom. ci njëkk trang digante dooma yaay digante dooma papa bu ci laalu nani ni laalu ma ci ñu lamb keneen waye tank mom feulul ci lamb ji rek dañ nan mom ndax kat nangu nako dispensaire fa waron ne ñi ko créé woon nañu nii ak école publique xam nga lu mu ko defal ben jàkk dem di sëlëm julit yi te julit ken mënu ko nax ba pare nak la dag daal koy def ferme dugal fa ay nag di fa jaay soow ak meew waaw loolu dama ne boo nangoo terrain doomu aadama def ca école doomu aadama dana xam ne c'est pour tout le monde waaye nangu alalu ñëpp def ci sa ferme dama ñeexu ñëpp ku ko bëgg naan sa biir dana daw nañu bàyyil suñu espace vert bii suñu bakkan lañ ciy teg man boo ma xoolee xam nga ni du ma du ma une jeune fille de 40 ans suba bu ngeen ñëwee ma ñëw gannaaw suba bu ngeen ñëwee ma ñëw ndem maa ngi dund dama ni faal na ni ki ko tooj na ko ci peel njool boo ko toojee day gudd te bu daanoo yeelam day damm loolu daa amoon pour leen wax. ñëpp a ngi koy wax ñëpp ngi wax Adama Faye Adama Faye Adama Faye Adama Faye dafa doy nag na Adama Faye génne loxoom ci mbir mii. nit ki bokay defal teranga moy sa mbok nga diko defal teranga jaru ngay écraser ñew ñew doole di fokati sen alal ko jox nanu dimbali ci lolu Adama fay bu ne bu ne na teggu si souf mu teggu si souf waxuma sax Macky Sall waye Adama fay mi ci interpeller ndegam deugal ni loxo ma ngi ci biir bu bu bu taxawon fi ni Ahmed Fall tegal si souf Ahmed Fall dina ko tek si souf Fallou wax na dëgg boo ko neexee na ko na ko may clé amee man na ko mais nag nanu bàyyi sunu jàmm